ñaareelu xaaj bi ci ñetti xaaj yi ba loolu weesoo nit ñi mujj nañu bare ci kaw suuf si waaye yàlla gis ne nit ñi dañu bonoon ba tax mu dogal ne dina tas àddina waaye amoon na kenn ku doon topp yàlla mu ngi tuddoon noyin noonu yàlla wax noyin ne dina tas àddina ci am mbënn yàlla jox noyin ay tegtal yu leer ci naka lay daaje ak gaal gu mag yàlla ne noyin moom ak jabaram ak ñetti doomam yu góor ak seeni jabar dinañu mucc noyin tabax gaal gi ci diiru téeméeri at ak ñaar fukk ci diir boobu noyin artu na nit ñi ngir ñu tuub waaye ñu déggadi gannaaw loolu yàlla wax noyin mu jël waa këram yàlla wax ko mu ànd ak lépp luy rabu àll mbaa jur luy raam walla picc bu ci nekk bu góor ak bu jigéen te ñu dugg ci gaal gi ñépp ci benn bunt lañu jaare dugg ci gaal gi noonu yàlla tëj buntu gaal gi mu taw ñeent fukki guddi ak ñeent fukki bëccëg ndox mi mëdd lépp ba ci tund yi gën a kawe lépp luy dund dee rab yi ak nit ñépp dee noyin ak waa këram toog ay weeri weer ca biir gaal ga noonu ndox mi wàññiku noyin ak waa këram ak rab yi génn gaal ga noyin tabax ab rendikaay daldi saraxe ay mala ngir màggal yàlla yàlla rëdd ak xon kaw asamaan xon gi doon ab màndarga ngir nit ñi xam ne yàlla dootul tas àddina mukk ci mbënn yàlla na noyin ak waa këram ñu am ay doom yu bare ni mu ko waxe woon aadama ak awa mu ne leen itam ñu tasaaroo ci kaw suuf si te fees ko léegi ma laaj leen fukk ndax noyin dafa yelloo woon yàlla musal ko ci mbënn mi lu tax déedéet yàlla musal na noyin ci kaw yiwam rekk noyin bàkkaarkat la woon waaye gëmoon na yàlla te déggaloon ko fukk benn ci seen xalaat ndax am na kenn rekk koo xam ne dafa yelloo yàlla musal ko déedéet nun ñépp bàkkaarkat lañu fukk ak ñaar ndax noyin moo nataal gaal gi mu daajoon déedéet yàlla moo wax noyin ni muy daaje gaal gi fukk ak ñett ci seen xalaat bu nit ñi déglu noyin tuub te bàyyi seen bakkaar ndax yàlla doon na wàcce mbënn mi déedéet kon doon na leen baal yàlla bëggoon na leen te bëggoon na leen musal waaye yàlla dafa sell kon du nangu bàkkaar fukk naka la noyin ak waa këram ak mala yi duggee ci gaal gi ñoom ñépp ci benn bunt bi lañu jaare dugg juróom kan moo tëj buntu gaal gi gannaaw ba ñu dugge loolu lan la ñuy won ci mbirum mucc yàlla moo ko tëj ni gaal gi amee woon benn buntu mucc noonu la yàlla joxe benn buntu mucc ba faw fukk ak juróom benn ñaata ñoo dee ci ñi dugul woon ci gaal gi ñépp a dee fukk juróom ñaar lu tax yàlla rëdd xon gi ci asamaan mandarga la muy firndeel ne yàlla dootul sànk àddina si ci am mbënn